السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي جنابني سنتي سني برام بيجي سنجد سلوات الله وسلامه عليه. نيوم نيوم جلنا زيارة جن برا أقدين بال. دنيان سني برام بوين بال بوين نقول تبارك الله الكريم. تينا نبغي نمشي بين التومبو أم سلام. boo xam ne bii buy faral di am la benn xadis la boo xam ne bii ñu bare mokkal nañu ko ñu bare mokkal nañu ko ci addis bii nag bu wér la càmbar nañu ko ba xam ne addis bu wér la ci went bi la bàyyi ko mu nekkin addis boo xam ne bii ñu bare mokkal nañu ko am na ñoo xam sax seen waxtaan bu ñuy tàmbali waxtaan moom la ñuy tàmbalee toujours seen waxtaan bu ñuy tàmbali ci at bu ñuy tàmbalee boobu nag la ñuy bëgg tey tafsir ci sunu kamtalaay kàttan muy hadiisu ñuy wax bidaa bidaa hadiis boobu bu am solo la bu wér buñu bare mokal way manam bi dess de manam bi dess ان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الحديث واحسن القول ولا احسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة دلالة أم يكون وكل دلالة في النار لوخ دليل li gën a dëggu ci wax mooy alquran boobu taxu na jóg boobu leer na boobu moom bàyyi na leer jar na noonu rek wax bu gën a dëggu ci wax yi moo di alquran boobu leer na amul ñu càmbar noonu rek la mu tekki lan mu tekki ni li gën a rafet ci yoon wala wala wala njub wala sunna mooy sunna Seydina Muhammad leer na boobu boobu taxul na wax boobu mu des nag li ci des nag kay nag affaire baa ngi ñëw nag préparé nañ ko at bi continué de ni charal umur moo di saa lii yées ci mbir yi mooy yi ñu sos dégguñu foofu nag liggéey baa ngi digg de mu ne lépp lu ñu sos bidaa la bépp bidaa riir la riir nag mook borom sawar lañ jëm liggéey baa ngi bokku lan mooy lu mu sos foofu liggéey bi de lan mooy lu ñu sos lan mooy bidaa lu ñu sos mooy loo xam ne dañu koo def ci ginnaaw yonent bi waxu ko diglewu ko defu ko du loolu mooy mooy mooy lu ñu sos kon at bi dugg na de wax kon wax na yëpp de lépp loo xam ne wax dañu ko ci ginnaaw yonent bi baa ñu def ko ci ginnaaw yonent bi te santaane wu ko waxu ko defu ko bidaa la loolu laaj gis wax bu ñu ko bàyyee noonu du baax de mat na seet de at bi ni mu wax noonu bu ñu ko bàyyee noonu rek dana dana dana dana dana dana yegg fu foo bëgg mu yegg fa de kooral xam nga fu ñu commencé alquran alxuraan mi nga xam ne moo ëmb diini ji moo ëmb islam bi fi la ñuy commencé kaamil bii ñuy nàbb nii bi la ah alxuraan bi ko waxee lu rek lu neen lu ñu sos yu yonent bi bidaa la kaamil bu kon bidaa la yu yonent bayu fi benn kaamil ويجينا ادنى بل كامل امر تبوند بل كامل باقر بلاز امر كل بلا نخلا لولو كان يوخ لولو كان يوخ يوانت بيو في جوغي كامل امر كامل بي غناوم لا نكو ديفال لولو لا ديف يوانت بيم في نيغي القران نياتي اسم لا امول غناو لا ني غور غورلو با ديفر اسم بي ني جيري ملي في اسم نيوكا ديفر دا يوغو يوانت بيم في نيغي امول نيسيف نيسيف في تا نياتا تيمير نيار فوك دا يوكا ديفر يوغو كو دي فكو ديريو yonent bi fii jógee robo amul ñaari téeméer robo ak ñeent fukk fekk ko fiigu yonent bi fii jógee sumun amul quatre cent quatre-vingts ñeent téeméer ak juróom-ñetti fukk ci ay ay ay sumun yonent bi yëgu diglewu xam nga ni yonent bi lu mu wax lu mu diglewu rek bi daal ah kon musiba dana am di des na déglul pareegunu yonent bi bi fi jóge kaamil bi ko gaa ñi defaree Abubakar bi ñu ko defaree amul tomb ba ta amul amul benn tomb ah ngi di jàng di déglul amul liif xëccaan amul bu neex jàng di déglul amul maska maska lonk maska yet maska ca kaw ñaari maska gaa yekk ci defar yonent bi yiw mom xamul sax masque bu ngani ni bidaan ah lu kay kan ko wax loolu kay kañ yeewu ko loolu loolu kay yow ko wax yonent bi ni mu ko baye won bu ñu ko delloo noonee du neex mokkal de dana bari ko firu ji de alxuraan di amul tom amul masque ah, man duma firi ji man dana bari ko firu ji de mom dañ ci baye masque yi bu lu ko delloo ne da dana bari ko firu ji de te loolu bi daa la yooyu bi daa di moom baax na moom xam am ngeen yonent bi taabi bu nekkee ak yu mujj aj moom la moom la aj sax di téeméeri junni saaba la bàyyi du tere ay xam nga ñaata ñaata moo ko alxuraan jamono yonent fukk ak ñaar gisuma lu ko passé fukki nit ak ñaar fukki nit ak ñaar ñoo mokkal kaamil bi nekk kaan fukki kaan ak ñaar la am téeméeri junni fukki kaan ak ñaar neexul mokkal di booba tax tey xool kaan yi fuñ jaar pexe la def tas def ko ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukki ay sumul bis bu ne nga jàng sumul boo ko defee te am xel te nekk xale maanaa te ba dee koy soxla war nga mën a mokkal sumul boo dee mokkal par bis bi de sumul at mi ñett téeméeri fan la ak juróom fukki fan ak ñeent soo ci génnee ñeent téeméeri gëm ñetti fukk tuutay des te ñaari la at nga mokkal commencé mu amuñu ko woon boobu pexe amuñu ko woon moo tax tey mokkal bi bare moo tax mokkal bi bare tey kenn ko bàyyi nii nii moo gën di kon suñu nee hadis bi nee na lépp luy sos gannaaw yonent bi rek bidaa la boo ko yebalee foofu musiba dina am te bari na koy wax koo xam ne ki yow mi koy wax ci bidaa yi ci nga bokk yaa ngi ci biir dana dana la mbaale de bi may ñëw léegi dégg naa ku noot di sawal am déet waru inéer dégg am ku noot bidaa la de wante bàyyiwu ko fi de bàyyiwu ko fi de mu ne sawal gi bàyyiwu ko fi déedéet bàyyi ko fi yóbbu ko Abubakar yóbbu ko Umar yóbbu ko na du sawal bii ñooñu yóbbuñu loolu ñoom xanaa kon bi daal gis nga fi ma ne bokk ni ñun bër bi bu mel nii gàtt bàyyi wu ko fi gannaaw yonent bi juróom benn fukki at la lii soo ko am ñun bër bi yegg bi xanaa kër gi bi daal daan toj ba ta daan toj ba taay de waaye mihraab bi fi imaam taxaw na te teelu tabax ki ni ñu tabax tam léegi li lii lu ko indi juróom benn fukki at gaa yonent bi li li xew xanaa kin bi daal gaa yi teenu bàyyi noonu teenu bàyyi noonu addi mbat da firi de dama ne ñiy def daawa di wër di wax ay daawa noonu nangam bi daal nangam bi daal nañu jàngaat addis bi nañu dellu si ustaas yi njàng leen at bi leerul de mokkul leen ko mokkul leen ko leerul nañu delluwaat ñu leen ko jàngal jàngalal ko ni leen des na des na de yàq bi moom wér na mokk na leer na wér na waaye maanaam yi des na maanaam yi des na de bu ñu yóbboo yooyu ba bi daay dana dana de bidaa yi dana bëri de waaw sooroor amul suñu jiwaan bi sooroor yonent bi wu ko digle wu ko itam loolu sooroor la déedéet moom kay boo demee jàkkee Madina daa toj ba tàyyi daa wàccee ba tàyyi min baar ba da koy toj sooroor ba da koy toj wante la sori da nga koy da nga leen daaneel demee parasol yëpp ay dañ mukkate day génn mukkate day génn ci biti bàyyi ko fi waaye yu gars yi bi daa yi mat na seet de hadis bi des na de xam nga lu lay génne ci hadis beneen hadis bi xam nga lu la ci lu la ci lu benn hadis moo lay bi day wax benn wax kenn mënu ko jëfandikoo mu wax ko benn wax mu diis kenn jëfandikoo mu wax beneen nga jël bële lijjantee ko bii waaye su fekkee benn bi rek nga ndax dina dukki dukki sa kaw dukki da wax feneen ni man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddud ay mardud beneen beneen ci beneen hadis ku fi sos sunu mbir mii di diine nga sos ci loo xam ne lii bokku ca déggal wax bi dégg wax

miraab minbar bi baax na miraab bi baax na noo dégg sawaal gi baax na mën na ci ne dafa ne man atu ko sos suñu mbir mi maa lay sa minhu lu ci bokkul maa lay sa minhu waxul man atu suñu mbir mi rek ñu ne sos lu ci bokkul lu ci bokkul lu ko jëndi ci bokk la lu ci bokk la masque ci kaw bi ci la bokk CDJK bi ci la bokk misi bi ci la bokk misi bi ci la bokk rebond ci la bokk sumul ci la bokk kon day dugg waaye boo jàppee bi yëpp a ngi sàkk te da tax a ñaanal de da lay yóbbu a ñaanal tax as am na daal ay xale yu may dajeel yi def daaw di ko indi waaye dégguñu. waxuma fi wérul de wér na leer nañ waaye maa ngi ñaan xale yooyu def daawa da ngi dale seen ustaas yi ni leen versu hadis bii des na de mokkul lu ko wax de mokkal lu yax bi waaye maanaam bi daal xam xam nu jaax xam nu jaaxal nañu leen ko tasalaat nañu leen ko tasalaat dafay laaj tas de yonent bi mooy waxee noonu ba demee ci asaka dafa ni fii ma saqati sama al ushr lépp lu asamaan roose fukkeel war na ci dégg nga wax de lépp lu asamaan roose génne leen ko fukkeel waaw waaw bu dee bu de bu dee bu dee benn ci la ci la gerte nag ah, génne génne rek bu dee benn pem gerte rek ah génne rek lu lu wax maa la wax de lépp lu la wax de de demal ci benn hadis mu ni laysa laysa fi maa duna ci boobu ma la ciy génne boobu ma la ciy génne boobu ma la ciy génne ji wax jële ma la ciy génne boo alxuraan noonu lay def moom itam boo demee surtout li sax raqabatin la wax goreel jaam raqabatin kese buy buyee fër ah baax na baax na ka raqabatin la wax ñëwal ci suuf surtout ji daal hmm? xas sa lu mu wax raqabatin mu'minatin bii ngay jël boole bële man dem waaye boo jëlee benn dem rek yaa ngi ci biir de dalay lay yombaale de kon buñ nee bépp mbir lu ñu sos gannaaw yonent bi baaxul musiba am demewul noonu de am na yu bare yu sos gannaaw yonent bi bu doon yonent bi donc duñu fi riij ji duñu liir ah bu doon donc yonent bi de duñu fi de ah moom mënul liir mënul bind amul turam ci ci ci aram noo ko bind kooku bu dee moom noonu moom doon wuru moom du dem de foofu dem saaba yi bu doon yàlla dong ak yonent bi du sotti bu doon noo Jibril dong du sotti yàlla xam ko mën a wax mu dégg Jibril malaaka yi bari nañu de kenn xamuñu toog yàlla ko waaye mel ni malaaka jibril dong dong dong la moo mën a moom dong moom dong lay waxal mu mën a wax yonent bi yàlla kenn diw làngaalu du pël du naar du wolof du joolaa du tubaab du anglais du du yàlla làngu làngu boppam la yàlla li muy waxee amul tàmbaleeg fu fu muy teere xalaas déglu ma man bismillahi rahmaani rahim lu ma mujj wax rahim yàlla amul loolu bismi gi ak rahmaani gi ak rahim gi ko ko ko mën dégg boobu làkk jibril doogu moo ko mën dégg jibril itam li muy waxee yonent bi moom do yonent bi rek moo ko mën dégg dañ daan toog nit ñi dañ daan toog saaba daan toog jibril ñëw di wax ak yonent bi duñu ko sax gis waxumatu la dégg yonent dañuy xool rek muy ñaq di ñaq rek mel ne ku mel ne ku ku neer nii di ñaq nii di ba mu yàgg rek mu leen jibril dem na de moo fi ñëw moo wax naa ko donc yonent mu wax ak ñun saaba yi wax ak ñun saaba yi taabi wane wax ak ñun nii la mbir mi demee waaye bu ñu dañu koy delloo ci yonent bi ah dana metti de moom yoon baal maa xanaa ci waxin bi wala ku li xaal daal xale yi def daawa gis naa leen del loon seen seen ustaas ya yéen ustaas yi ñun daal li ngeen jàngal nii dëgg la nañu leer na waaye des na des na de des na de des na nañu ko jàngaat nañu ko jàngaat jël nit ñi yóbbu safara rek ku ne ñoo xam ne nii safara la gi bi daal ah mag mu jàngal xam mokkal di bind di liir ngeen ngeen safara la jëm waaye lii jaaduwul nañ de nañ delluwaat nañ delluwaat seen oustaz ñu wax leen que yóbbu ñëpp safara boo leen ñoo xar dañu leen safara nga ne ni ngeen addis bi ah saral umar yi amar sa aswaar rek nañu dellu ci oustaz ñu wax leen ko metti na de wasalaamaaleykum wa rahmatulah